bo maa ngi tudd Modou Mbacke Diouf dëkk Yarwaay sama papa tudd Serigne Yarwaay Diouf sama yaay soxna na koy fay waaw ma juddoo Yarwaay màggee Yarwaay ba fi mu ne nii génnu ma Yarwaay. man candidat laa ci commune Thiakhar bokk ci coalition Yewwi Askan Wi doon tête de bi fii ah, ñu ciy remercier de passage euh, Aïda Mbodj mi nga xam ne mooy coordonnatrice départementale. jàpp ci lool nag jàpp ci lool wax dëgg yàlla sunu programme bari na parce que mën na maa wax ci santé parce que commune Caxar santé daf fee sooxe lool daf fee sooxe lool lool lool parce que benn poste de santé moo fi am ci 63 village xam nga loolu mënta satisfaire maanaam besoin sanitaire yi nga xam ne Caxar soxla na ko waaw loolu ci suma programme la ma fas yéene bu ñu ma falee le 23 janvier 2022 dinaa fexe ba séddale dinaa séddale Caxar ñetti secteur xam nga 63 village boo ko diviser par trois da ngay am 21 muy 21 secteur muy 3 secteurs de 21 villages nga xam ne villa euh, secteur bu ne dinaa fexe ba dote leen benn. poste de santé ak ambulance pour li nga xam ne problème mu santé moo am caxar ñu euh, man ko fee jëlee totalement. loolu ci suñ programme la des na nag ci wàllu mbay wàllu njàng yépp am nañ ci programme waaw bu dee wàllu njàng gis nañ ni compétence transférée la ci école primaire yi te gis nañ ne école yi. amul sécurité parce que boo dee seet fii tey ji école yi ëpp kenn clôturé wu leen te bu boobaa dinañ def tout pour clôturer toutes les écoles yi nga xam ne ni amuñu clôture pour éco pour élèves yi nga xam ne ñoo fiy jànge dinañ am sécurité dinañ def tuut école bu amul ndox dinañ fa dugal ndox école boo nga xam ne bu fa dugalee ndox ñooy fay factures yi waaw dinañ fexe aussi ba fourniture élèves yi élève bu ne ci di nga am fourniture bu doy parce que li ñu état di jox nag dañ ko war a delloo ci askan bi te loolu ci la bu dee wàllu mbay xam nañ ne semence bi ñuy joxe doyut euh, baaxut waaw parce que boo dee boroom kër yor sab kaare ñu jox la ñetti kiloy gerte depuis ba ma xàmme ko ba tey dangay gis benn chef de carré am fukki kiloy gerte fukki kiloy gerte ñu ne semence la te bala ñu koo joxe yàlla ji taw ba nji paase loolu yépp dinañ def tout pour loolu jóge fi am nañ ku ñu yaakaar bu baax parce que Aïda Mbodj moom ñépp a ko xam kenn ku ne xam na ne mooy gaynde Sénégal gépp boroom musóor gi ku ànd ak moom ku ne dina la épole ba li nga bëgg boo gañee di nga ko am surtout les plans waaw financement des femmes mu ngi fi ah wax naa ko léegi tey boo duggee caxar dëkk boo dugg joxe na fa moulin à mille petit forage yi set petit forage mu ngi ci commune bi moo ko fi def exemple bu ma jëlee yarwaay gi nga xam ne mooy sama cosaan man na caxar caxar gépp ma ñor yarwaay laa dëkk mais tey ji yeneen dëkk yi sax ma gën a ñor ni yarwaay ndax yarwaay xam nga ne am na courant ah électrification rurale yarwaay am na courant te boo dee seet tey juróom benn dëkk xaw ma ñoo am courant ci commune bi ci 63 villages loolu xam nga ne maire bi ñu fi nekk mën nañ koo indexé ne liggéeyut ah, mais am na lu maire bi mhm. ah man de gisuma lu mu fi def mhm. parce que yaakaar naa ne boo gisee ñépp doyal si moom day ah deful dara man maire sans bilan laa ko tudde parce que fu mu dem yaakaar naa ku la dig daaw ku la dig ci juróomi at yi mu toog fii ne la dinaa la defal lii ñu jox ko juróom-ñaari at ba buuñaa ko ça veut dire dañ koo buuñaa ñaar yoo xam ne bokku ci woon te defu fi dara kooku bu ñëwaatee di dagaan baatu askan wi askan bi ñoo war a am fulla ne ko fii fii bu fi dugg sax lañ ko war di wax parce que liggéeyu fi dara la fi deful dara waaw foofu ñu ngi ci sant yàlla parce que dañoo dëkk kilifa yoo xam ne nii ñu ngi dox ci lool sax muy Serigne Moustapha Waalo mi parce que tey jii mën naa ne bras de fer lay def ak Serigne boobu le maire la le maire sortant parce que Serigne bi moo am jarbaatam buy liggéeyee feera defoon demande pour ñu tali kër daam ba pont Baye Mass Fall xam nga loolu buy dugg ci commune il faut ñu ne la yow mi def demande demal ci maire bi mu bind ba d'accord ci nga door ñu koo indil waaw moom même bi mu bindee maire bi pour mu indil ko ko maire bi daanaka moyoboo ne dafa bañ dafa bañ ça veut dire dafa contre loolu sëriñ bi wuti woon waaw ba di ci def ak bras de fer ak sëñ bi waaw maanaam daal boo ko dee seet moom dafa waroon a sant sëriñ bi mais sant ko ba pare li sëriñ bi wuti pour commune am ak i taalibeem nga xam ne boo dee seet sëriñ bi am na ci dëkk bu nay taalibe pour ñu désenclaver dëkk yooyu sëriñ bi dem ba foofu lijjanti maire signé rek mu ñëw maire bi ne du signé kooku xam nga ne bu ne bëgg na commune am bëgg ko. waaw ñun. sunuy projet bari na li ma la wax rek parce que ñun Aïda Mbodj mooy sunu coordonnateur fan Bambey ah Aïda Mbodj la ne Bambey yëpp moo ko def la nekk Bambey yëpp moo ko def gis nga stade mini sport bi nekk côté mairie ah damay citer rek yi nga xam ne ni Aïda Mbodj moo indi police Bambey ah, moo fa indi police moo fa indi japeur ah, moo fa tabax ah, ah, omni eh, kii bi handicapé bi ci ci ci route nationale bi ak yeneen tali ya fa ne yépp moo ko fa indi waaw kooku xam nga ni bu doon bilan dong ah te Aïda sax macha allah xëccatul dara bambaya parce que moom ne na comme formé naa samay doom wa sunu programme programme yooyu askan wi moom yaakaar naa ne yaatu na informel beeg yépp Yewwi Askan bi dina def ba taxawu doom aadama yépp taxawu population bi ci seeni bëgg-bëgg waaw parce que boo ko dee gis démb ñu ngi woon Mbàkke de mais xam nga luñ ñu fa wax ne Mbàkke amul ndox xam nga muy lu doy waar dem ba nekk presque vingt-deuxième siècle ñu naan dëkk sàngam amul ndox loolu doy na waar mm. doy na waar trop ñu am ci naqar nag ñu am ci naqartel te ki ñu ko teg kenn la mooy Macky Sall nañu am fulaay nag ah, bu ñu eggee ci jour élection yi di le 23 janvier 2022 na ko ñépp sanctionné ah sëñ bi ñi fi ne moom defuñu fi dara candidat yi bari na mais nag pour man ñaari candidat moo ne ci xar ne parce que man maa ne yeewi askan bi mais ñi ci des ñépp Macky Sall lañ lool nag la population bi war a def ci seen xel boo dee seet Aziz Diom Cheikh Tidiane Gadio la ah euh, Balla Diom Ngom Diagne Fada la Diagne Fada mooy euh, le directeur de la Sonacos kooku moom xam nga ne Macky Sall la ko fal ñi muy tëb liggéeyal kenn ku dul Macky Sall le maire sortant de même modèle la génne woon mais transhumé na ndax ay ay problème électoral yu fi amoon mu sàcc ñu inversé samay résultat ma gagné woon largement ñu inversé samay résultat ci bureau boobu ba ma def cour d'appel ñu delloowaat ma ko mu dem ci Mor ne ko boo ma jàppalee ba ma jël mairie bi dinaa transhumé ñëw looloo ko yóbbu APR mais moom modèle sax la demoon liste modèle. waaw suñ campagne ñu ngi sant yàlla bu baax parce parce que ànd nañu ak Aïda Mbodj ñaari fan sillonné commune bi yi ci des ñun ñoo ànd ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci liste bi. waaw daa te suba am naa benn programme bu mag a mag a mag le 16 nga xam ne damay def benn caravane boo xam ne ñi bokk ci liste beeg ñi ci bokkul lépp suba dina ñëw ñu si sillonnewaat commune bi wax leen li fi ne xam ne yeewi askan wi moom rek moo ci mën mën a génne réew mi ba développement am ci waaw. aussi bala maa jël damay remercier suma leader Aïssatou Mbodj parce que daf ñoo jàppule bu jëlee choix am ko sama euh, sama jëmm ju ndaw ji te ay intellectuel ñu ma dàq jàng dong nga fi ne mais moom moo ma woone ma yoway sama candidat ci commune bi loolu mënatuma koo fay waaw maa ngi koy remercier lu bëree bëri di remercier aussi euh, conférence de leaders yi ne ci kaw yu yewi askan wi ñi doon def meeting Mbàkke démb macha allah sant nañ bu baax daal waaw sant nañ bu baax.